Pape Mok ñu ngi leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi ñu tàmbale ko kon ak wàllu wér gu yaram ñi nga xamante ni am feebaru roñoo kon ñoom ñoo am lu leen métti ndax jàpp nañ daal ñu bëri ci ñoom bu buñ bëggee def rek lii na naan mbiram jalis dañuy fay koppar yu bëri loolu nag gouvernement bi daf na woon yaatal na ko ba léegi kuy def jalis doo fay wante am na lu manqué ci boobee lim ba tax na kon ñu sàkku ci kilifa yi ñu jubbanti nañ ci lool jëwriñ ji dénk wàllu wér gu yaram Abdoulaye Diouf Sarr ndax jàpp daal li nga xamante ni moom la ñu fay saa yu ñu def dialyse dañ ne woon rek ñeenti junni la wante dem na rek daanaka ba lu ëpp fukki junni ak ñaar ba tax na kon loolu métti lu noonu ko démb ñu ngi ci doon daje fële ca place de l'obélisque Pape Fale ñu ngi Modou Diop. bu seer lool tax ba njaboot gu bëri jaaree ca ndóol te nag. sa giiru dund la lay topp tax ñi nga xam ne ñoo am feebaru roñe di artu ak a yëglu muy yéen muy keneen képp ku mu dal ci sa famille mooy famille boobu torox nañ seen giiru dund ndax dinañ jaay li am ak li ñu amul yëpp ba bor ay bor fekk leen ci ngir mën a faju te nee nañ ñu feebar boobu nguur gi mu ngi koy maye gratuitement. def naa dix ans de dialyse fay naa quarante cinq millions ci dialyse sama waa kër ak man ñoo tax. deewuma lu toll six cent ci quatre mille dong ñoom ñoo am li nga xam ne moo nekk jalis gratuitement ñoom lu ñu bëgg mbir mu yaatal ko ba ñëpp jotee ci. gratuité boobu buñ ko yemalee ci séance de dialyse bi kese ci hôpital nañ gratuité bi dem ba ci privé bi yëpp public ak privé état subventionné ko. vingt mille sénégalais dugg nañu ci dialyse yi quatre mille ñoo war a am dialyse six cent rek ñoo dul fay. donc suñu waxee que la dialyse est gratuite sur les vingt mille sénégalais six cent rek ñoo dul fay mille personnes ñooy sur la liste d'attente et le président Macky Sall waxoon na bëggatul gis sénégalais si liste d'attente parce que sénégalais suñu la waxee demal si liste d'attente quinze jours nga fay def nga dee. ñu jàpp ne seen i jafe-jafe yëpp kenn rek moo leen ko teg di ministre bu yor wàllu wër gi yaram. lu ne mën na ko nekk sauf ministre de la santé maa ko wax sama baat ne poto kooku xamul dara ci santé man mii di wax a yow suñ ma joxoon ministère am boobu je ferai mieux que parce qu'il est trop politique. gannaaw seen toogaanu ñaxtu bi bu dee defuñu ci dara ñëw mouvement insuffisant rénaux yi ne nañ dàq ñu ba dox ba ca giri pale yi. wàllu politique ñu dellusiwaat ci di ndogal bi nga xamante ni kon moom soxna Aïssata Sall Sall jël na ko ngir rek euh, jàppale ji président Macky Sall ginnaaw moom ba mu bëggee bokk ci yooyu élection te mujj du antu ndax na am matul moom nag wax na li tax rek euh, mu daal di dem fekki Macky Sall ngir jàppale ko ndeem sax am na ci yeneen candidat yoo xamante ni waxtaan nan wante mujj ñoo juboo dem kon la ci jàkkaarloog taskatu xabaar yi Cheikh Diop ak Diafara Ba mbir mi leer na jamono yi doonatul lu kenn di natable maître Aïssata Tall Sall daal dinay fekk ki njiitum réewu Sénégal moom Macky Sall ngir rek daal di koy jàppale ci élection présidentielle yi ñu dëgmal. président Idrissa Seck nga xam ne sama càmmiñ la laajoon na ñu gisee ñu toog gisee sama rakk Ousmane Sonko laajoon na ñu gisee ñu toog gisee président Macky laaj ñu gisee ñu toog gisee ñoom ñetti yépp ak fu mu munti dem. demuma man kese sama bopp ndax xam ngeen politique tuuma dafa gaaw fu ma ci dem rek damaa ànd ak kenn ci suñu coalition bi ñu demee ba ci biir ba xool ba xoolaat ba seppiwaat mbir mi ñu xam ni pour ñun yoon bi gën a baax bi gën a jub pour Sénégal mooy jàppale président Macky Sall. njiit bu Osez l'avenir di xam xamle ne li waral lu ni mel moom moo di bëgg coppi doxalinu réew mi. naka lañu mën a def ba Sénégal yi mën a yor seen bopp di dunde ci seen alalu bopp moom it mu wax ma ci loolu lan la fas yéene def. ci wàllu social ba jàppale sénégalais yooyu ñu mën a yor seen bopp ak leneen ak leneen ak leneen loo xam ni dina gudd lool loolu yëpp ñu càmbar ko waxtaane ko fii mais daal gis nañ ni am na gis-gis bu baax boo xam ni ñun ak moom ñu ngi ko méngale di ànd. mu daal di si toftal ne lii ab décision politique la du lu ko kenn déey ngir rek mu daal di fekki njiitum réew mi. ñuy wax ni ay sataa dafa bëgg a dem ndax sëriñ ñoo ko fa yebal dañuy wax lu leen neex. man sëriñ fonk naa la respecté naa la ci ni nga nekkee sëriñ ma nekk sa taalibe mais nag sama dogal politique maa koy jëlal sama bopp te man du ma responsable yi nga xam ni dañuy làqatu ginnaaw sëriñ wala làqatu ginnaaw base ne sama base ma defloo kenn defloowu ma décision bii may jël dama ko xalaatal sama bopp. maître Aïssata Sall ba tey di sàkku ci képp ku nga xam ne ni rek da nga di membre bu Osez l'Avenir nga daal di woteel njiitum réew mi ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ngir rek mu daal di jël raw gàddu gi. yooyu élection nag kilifa yi ñu ngi ciy sàkku jàmm ba tax na kon euh, démb xalif général démb di sañ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér sàkk woon na rek ci waa Sénégal ñu dem ci jàkka yeeg barab yi ngir rek jàng fa kaamil loolu nag fii ci Ndakaaru ca Masaalikul Jinaan taalibe yi jëfee na loolee ndigal di sàkku rekk ñoom it jàmm ci yooyu élection may mën a jaay ak Amadou Ba. mag ndaw góor ak jigéen ñëw wuy si appel bi nga xam ni xalif général des mourides woote woon nañ ko ci fan yi ñu génn lii lépp ñu boole ko ak ngëm muy xasida ñaan bàyyiwuñu dara li lépp li ko waral mooy élection palum njiitum réew ñu dem ca ci dal bi nga xamante ni mooy sunu kilifa ndigal li mu joxe bi nu xëyee ñun ci lañu ne fii may waxee yow ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett jàngagun nañ ko. mu mel ni woote bi ñëpp dégg nañ ko ndax kat nee nañu dañ ciy dem ba jeex te duñu yam fii. baat boobu di jàmm nag ku nekk moom la war a dox moom la war a jëf di ko dox di ko wax te di ko séenu ndax lu waay am amoo jàmm dinga jaay la nga am jëndi ko jàmm kon jàmm gën fii moo gën fa nu jëm Serigne Touba day bi nga xamante ni dara desut lu dul. woo yàlla ci turam woowu di salaam bi mu koy laata woo da ko tuddib dëkk dëkk ba tudd daaru salaam mu jur doom tudde ko abdou salaam door wax yàlla yaa salaam kon xew-xew yi xew yëpp dara mënu koo sottal lu dul jàmm te ku xool réew yi nu wër xam ni loo gis jàmm ko gën ci ñaan yi nag nemmeeku nañu ne ndaw yi bari nañ fi loolu rawatina soxna yi wax ci wàllu aada ak cosaan woykat bi donc di Vieux Mac euh, fay moom nag génne na ab album rek euh, tuddee ko non assistance à enfant en danger jëm ci gone yi nga xamante ne daal. buñ leen euh, wattuwut euh, mën naa indi loraange rawatina xarala yu bees yi nga xamante ni kon ba rek lay jural askan wi album bi juróom-ñetti way ñoo ci nekk di ay morso ba tax na kon démo présenté ko public bi Coumba Gawlo Seck la ndayalee xew wa ñu ànd ceeg Sylvie fay ak Amadou Ba. gannaaw ay atité kaaral Vieux Mac Faye génne ab album bu bees tàq juróom ñetti titre ñoo composé boobule album ak style musique bi nga xam ne bokkul ak yeneen yi album boobu di jël xale yi rek teg leen ca biir. xale yi dañ leen war a jël dugalaat leen defal leen ay affaires yi nga xam ne ñoom day nekk seen monde ñu bañ a toujours di emprunter le monde bi nga xam monde yu bon yi ay internet ak yooyu. seet nu ñu leen mën a def ba récupérer leen duggal ñoom seen monde monde de l'enfance bu sain huit fii benn bi mooy non assistance à enfants en danger wàllu si nañu wàllu xale yi xale yi nga xam ne ils sont en danger benn bi premièrement deuxièmement greffier bi maanaam benn clin d'œil la def euh, justice sénégalaise ak le blues du juge ki nga xam ne que maanaam juge bi ki nga aujourd'hui tey ñu ngi koy ŋaññ di ko ŋaññ mais ma jéem jël personnalité blues euh, juge bi nekk ci biiram pour comprendre lan moo ko obnubilé. ab jooy xool ak interpellation euh, ci mareenu album bi bi nga xam ne euh, mi ngi saluer boobule initiative bi nga xam ne dafa ñëw fuñ ko soxla. merci vieux pour cet honneur. nekk mareenu bile album. dëgg la. thème bi am na solo xale yi eh, dañ leen a seetaan torop te gëm naa ne buñ leen seetaanee donc suba ñooy doon ay eh, mbag yi nga xam ni eh, dañuy irresponsable te loolu baaxul ci suñu société bi donc dañu war a gunge xale. dans la société. ce qui va amener bi nga xam ne thème bi ñu ngi ko axé ci non assistance à enfants en danger Vieux Mac di yaakaar ni du tàbbi ci ab noppub tëx. jërëjëf soxna Sylvie Faye mbokk yi yéen it euh, jërë ngeen jëf euh, fi la ñuy yem ak yéen euh, ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon ci ànd beeg télévision Futurs Médias bàyyi leen ak Baye Cheikh Moué ak yéen seen émission yow leen ñu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm.